الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant cheikhul xadim cheikh Muntaha Bachir ñu ngi teewaat fii ci jumaay Tuubaa ji nga xam ne la cheikhul xadim waxoon ni wajal binaaya binaa afiya kon fii lañ nekk ci jumaay Tuubaa di fi yëkkati ay kàddu ci turu ñi nga xamante ni mooy mbootaay gu ñuy wax Hermanos Thioune nekk fële ca Espagne ñu wax fii ci réew mi ñu koy wax frère Thion nga xam ne dañ fay am benn maanaam lu ñuy wax société boo xamante ni moom lañ fi taxawal ba noppi boole ci benn centre de jour mu nekk tamit euh, benn fondation boo xam ni moo ànd ak moom tamit di ko accompagner ci liggéey bi muy association Afro Canarias ah loolu nag suñ borom dafa dogaloon ñu jaayante woon. ak euh, daayira Muxaddamatul Xidma ci li nga xamante ni mooy màggalu Cheikhul xaddim gi nga xam ni dafa waxoon ni képp ku ci feeñ dootoo nëbbu waaye képp ku ci nëbbu dootoo feeñ kon nag yàlla dimbali ñu di ñu womat ñi nga xam ni ñooy hermanos Thioune ba yàlla dogal ñu bokk ci li nga xamante ni mooy màggalu Tuubaa gi ba man cee def li nga xamante ni mooy jàpp ci liggéey bi jàpp ci liggéey bi nag buñ ko waxee mooy dafa bari ay fànn ah, maanaam fànn yi nga xamante ni ah, Herman Sune bëgg na ko jàpp ci liggéey bi mooy ah damit day ah, door li nga xamante ni mooy li nga xam ni day jàpp ci ndékki yi ndax bu ñu fàttani itam daayira mu xaddimatul xidma mbooloo mu takku la tey tamit euh, ñi fiy liggéey tamit dañu yittewoo lépp lu nga xamante ni doomu aadama da koy yittewoo muy bu ñu xëyee war nañoo def li ñuy wax ndékki bu buñ demee tam ba waxtu tisbaar tamit war nañoo def li nga xamante ni mooy jëfandiku li nga xam ne mooy ci bëccëg bi itam buñ demee ba ci guddi gi tamit war nañoo def li nga xam ne tamit du mën a ñàkk ci guddi gi ah loolu tamit euh, Hermanus Cuuni tamit euh, bi mu jàppee ci liggéey boobu dafa ñëw tamit ngir fasanteeg ñoom wóllëre ci ay kàddu wóllëre googu nag mooy ñëw joxe seen doole ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi muy doon loo xamante ni itam dootul dog incha allah bu soobee yàlla bu loolu jàllee yi tamit Hermanus Thioune dina fasanteeg ñoom ci ay accompagnement yoo xam ni ci bépp liggéey boo xamante ni daayira mu xaddimatul xidma da koy liggéey ci biir Touba ak ci biti Touba muy ci ban fànna maanaam Hermanus Thioune dina leen jàppalewaat ci geneen fànn muy ci ginnaaw maanaam ci formation muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fi nekk techniciens yi nekk ci biir jumaa ji nga xam ne lépp luy image wala lépp luy ojo lépp loo xamante ni lu fu war a génn la rek nit ñi war koo xool wala ñu war koo dégg Air Mansour dina leen ci accompagner ci formation ak yokk seen xam-xam ak bépp matériel boo xam ne tamit war na ko mën a jël jàppale ko jumaay Touba ci wet googu ah kon xam naa du ñu guddal suñuy kàddu ndax ñu ngi toog ak suñuy jëwrin muy suñ ah, muy sañ Assane Diop mu xaddimatul xidma nga xam ni du sonn du toqi du tàyyi ci liggéeyu Serigne Touba ñun sax ci moom la ñuy roy di jàng ci moom ab liggéey mook sëriñ Laat Bousso mi nga xamante ni moom i tamit ñu ngi bég bu baax ci teewaayam ah di leen jaajëfal tamit ci li nga xamante ni mooy li ngeen ñu defal tey ndax ñun defe naa ni lii sax jomb nañu waaw ndax eh, ñun lii suñu warugar rek mooy liggéey rek ne ci seen ginnaaw waaw waaye nag xëy na ah li suñ borom subaano wa taala waxoon yonent bi salaa salaam nekkoon na nga biral ni yusaar yow na fil xayraati dafa baax léeg ñu koy biral ndax ñi nga xam ni bëgg nañ lu baax di ci roy ñi nga xam ne nag ah bëgguñu ko tamit toog fañ toog kon loolu rek moo tax xam naa ñu ñëw ngir béral ko kon xam naa rek du ñu guddal kàddu yi dañ leen di bàyyi itam ak ki nga xam ne lañu àndal muy sëñ Omar Diop mi nga xam ni ah, moom moo féete ci ah, boulangerie bi nga xam ne moo nekk ci centre du jour bi ñu am fële ci baam Bambey nga xam ne suñu liggéey yëpp foofu lañ ko tënk muy bépp liggéey bu ñuy def biir Sénégal ndax euh, Hermanus Thioune tam lii seen liggéey mooy euh, développement ak euh, ak solidarité ak accompagnement loolu mooy liggéeyu Hermanus Thioune fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax bu ñuy xool sax mën nañ wax ni daanaka ñu ngi dogg a dugg bu baax ci biir réew mi ndax ndax daan nañ fi def ay yëngutu yu xaw a tuuti waaye daanaka liñ daan yëngulu ci ëpp ca bitim réew la euh, la daan féete kon nag yàlla dafa dogal euh, ren ji ah, suñ borom dogal ñu am yéene ñëw ci màggaluk sëriñ Touba gi door li nga xamante ni mooy sunu liggéey fii ci biir réew mi kon xam naa rek dañu jox sëñ Omar kon sëñ Omar rek xam naa nga leeral li nga xamante ni euh, moom la Hermanas Thioune di waajal ngir mu nekk lu muy jàppalee mu xaddimatul xidma ci ndékki yi nga xamante ni dina am ci màggalu Touba gi ren incha bu soobee la ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di ñaan sëñ Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér ñu ngi sant yàlla nag bu baax ci liggéey bii ñu boole ndax yaakaar naa ne bésu bés bu màgg bu toll nii buñ la boolee ci liggéey bi loolu ak cant la ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu kàddu yi nag du ci mën a bari ndax suñu xol dafa sedd lool ndax loo yaakaarul woon ci àdduna bu demee ba yàlla teg ko ci sa loxo. kooku tawféex la ñuy sant ñii nga xamante ne nii ñoo ŋànk liggéey bi ñun daanaka ndongo lu ndaw lan rek ci biir liggéey bi waaye am nañ yéene ci lii nga xamante ni moom lañ teg ci suñu loxo muy ci wàllu ndekki yi daanaka sax jaratul ñuy wax nombre boo xam ne dinañ ko def lépp loo xam ne suñu doole attan na ko bu soobee yàlla dinañ ko indi waaw loo xamante ne ni nañ ko jëfandikoo ci ay ndekki bu soobee yàlla dinañ ci def suñu kéemtulaay kàttan ba nii ñu ko bëggee ñu doxale ko noonu muy lu jëm ci ay bonbon ay mbiru suukar ay yeneeni xeet yoo xamante ne nii dinañ ko soxla ñun daal pare nañ pour accompagner loolu ci màggal gi ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax ci boole gi ñu ci boole eh, di gërëm suñu sëriñ yi nga xamante ne ñoo ñu yaatal ba teg loolu ci suñu loxo muy lu sedd suñu xol ñuy sant bu baax a baax xam naa kàddu yi du mën a gudd ndax xool bu sedd moo ñu jàpp jërëjëf jërëjëf kontaan nañ. waaw kon xam naa rek euh, ñu daal di yemale foofu kàddu yi kon di leen dox jox di daje incha allah bu soobee yàlla ak euh, li nga xamante ni mooy télévision grande mosquée de Touba nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayub. fii ci biir réew mi ak ci biti réew mi ndax euh, defe naa ni tamit liggéeyu Serigne tubaa dañ ko war a wone ci àdduna bi yëpp ndax rek du ci wolof yi la war a yem du ci Euh, du ci tubaab yi la war a yem du ci naar yi la war a àdduna bi yëpp ñoo war a jariñoo Sëriñ tubaa dama koy faral di wax léeg-léeg euh, ci làkku espagnol ma ni wa biya jadidi sabil bila aidan aw alami Dios me ha encargado a vivificar sin guerra et sin violencia kon defe naa ni Cheikhul Khadim dafa ñëw ngir yeesalaat li yonent bi sallallahu alayhi wa doon def waaye nag ci jàmm ak salaam te du ngànnaay du dara lu dul wonewaat li nga xamante ni mooy lislaam dëgg-dëgg ndax loolu dafa am solo tamit nit ñi xamee loolu kon xam. Euh, jërëjëf euh, sëñ Bay euh, ñu ngi lay siyaare bu baax yaa ak sëñ Omar bi nga xam ne yéen fi teewal famille Thionène bépp ci teewaayu sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne tey jii moo fi teewal sëriñ bu Bousso al imam ak daayira bi noonu nag bu ñuy wax ci seen seen jataay noonu dañuy seede ci sa jëmm ji. ndax danga nga bokk ci membre fondateur dayre daayira Muxaddamaatul Xidma Touba Espagne bokk ci ñi nga xam ne ba muy sosu ci nga jógoon ànd ak ñun ci liggéey bi ñu xam la ci sa pasteef eh, xam ci sa jàpp ak sa yaatal kon tey boo ñëwee fii ci jumaa ji eh, ànd ak famille Cuuneen ngeen ñëw bi ngeen ñëwee def li daayira bi gën a soxla mooy ñëw ci daayira bi laaj leen Euh, ci gan wet ngeen bëgg ñu jàppe ci ñu jàppe ko ci liggéey bi ñu xamal leen liggéey bu rëy bi ñu yor lu toll ci juróom benn téeméeri nit wala juróomi téeméeri doomu aadama yoo xam ñëpp waa xidma lañ nekk fii ci jumaay sëñ ji di gàttandu nit ñi ak di leen dalal biñ ñëwee ñu leeral leen liggéey boobu fekk na yéen itam yàlla tawféexale leen jumtukaay boo xam ne euh, la ñuy liggéey mbooloo mi dana ko soxla rawatina lu mel ne pour ngeen sasoo nag lu jëm ci ay ndekki euh, fa séene ko indi ci daayira bi loolu moom daa dajeek muy bëggug daayira bi kon yàlla na leen ci Sëriñ Tuubaa fay euh, ba noppi itam ànd ak ñoom itam ci bernde yi ba sasoo ci aw nag woo xam ne tey jii juróom benn fukki junne nga koy wecc ko loolu nag dañ leen ciy ñaanal ci doole borom liggéey bi bu déwénee muy nag yu daj jumaa jëpp waaw nga xam ne yéen dañ ñaan léegi kat la aju ci maanaam ndékk yi ngeen fas ne sosoo ndax loolu day lu daayira bi soxla foo xam ne dañ naan juróomi téeméeri doomu aadama ñoo fay nekk di fa xëyal sañ tubaa di ko fa gontal kon ku ñëw ci ñoom laaj leen ñu wax la liggéey bi ñu yor nga sosoo ñoom indi fa ay ndékki soso ñoom indi fa ay añaki reer loolu yow def nga li sañ tubaa li ko gënal sax ci liggéey bi kon nag yàlla na leen yàlla fayal boppam ñu gàttal kàddu yi jox sëñ abdulaat bu sa cerno mu li ci des daal di koy tëj waaye nag ñun liñ mën a seedal ci sa jëmm ji daal mooy yow moom sa yëngu bépp xam na ne moom weesuwul liggéeyub sëñ Tuubaa bi rawatina ak jumaa ji kon nag sëñ Umar moom loolu dal na xel moom ngeen xamal mbooloo mi ne leen seen jëf ji day jëf nañ ko fi gënal sëñ bi ci jëf yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, sëñ mbay ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Omar Diop dina yóbbante nuyoo tamit ci sëriñ Xaali Diop. ak mboolem mbokk yi sa wëllëre yi nga àndaloon waaw ak mboolem askan wi nga xam ne ak euh, station bi nga xam ne euh, Hermanas Thioune ak frère Thioune ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ak initiative yi nga xam ne am ngeen ko ci dimbale nit ñi gis naa keroog seen vidéo yi ci ngeen di dimbale tout tànk yi daara yi ak yu demee noonu euh, tey nag moom dafa mel ne kon Euh, da ngeen doon làmb ci yi ngeen doon def yëpp nag waaye yéen a ngi doog a daj nag ndax jëf lu baax moom amee na solo fu nekk waaye fii dafee sekkee dafay sekke sekki nag moom xëy na sunu mbokk yi ndaween yi ak ñu ñu xam leen mooy sekk mooy da ngay am tuuti cere joow def ci tuuti ndox bu ko defee mu bëri lool ma nga mën cee xew lool lool loolu jëfal sëñ Tuubaa ci jumaa ji noonu la mel maanaa maanaa da ngay def lu tuuti bu dee fukk boo mu ngi mel ne nga jël wenn fepp gub fepp dugub ji ko ni mu doone euh, sax doon gàncax goo xam ne day doon juróom-ñaari gub te gub bu nekk daanaka mën naa doon am juróom-ñett téeméer wala ju wala junniy pepp moom la jëfal Sëñ Tuubaa mel rawatina nag jëfal ko ci jumaa kon li ngeen li nga xam ne euh, fas ngeen ko yéene te tàmbali ko tey jii muy te ngeen waxoon ko keroog ñun ñëwee ñu leeralal liggéey bi ngeen ne kat ñun kat danañ jiital. ñëw sax indi suñu participation ci berne yi laata ñuy indi ci ñëw ci ndekki li kon seen jéegooy tey dafay dëggal li ngeen nar a def ci bisu màggal gi yeneen loolu nag damay jàpp ne Sëriñ Tuubaa moom li may wax man toujours ñun kat liggéey bi wax dëgg yàlla duñ ci nekk di ci neexal kenn wala ñu ciy xëcc kenn walla lenn man a liggéey bi Sëriñ Tuubaa boo xam ne du lenn ni kenn léppi ñëpp la lu nay ku ngi ci man ak yow ak suñu Omar mii ak suñu xaali ñoo ci bokk yam gis nañ ne njariñ la ñu ne ñu ngi génne suñu ñaq ak suñu doolee di ci def ku ñëw ngir bëgg cee def yaatal li ma ko waxoon keroog bàq la boo xam ne daal tooy na ku ñëw ngir bëgg a ji ñu bàyyi la nga ji te nag gàncax gu rafet moo fiy màgge du du du foo xam ne da koy ji ci dett ndeer muy muy gàncax gi di la yàq gara dara maanaam gàncax gu rafet ngay am loolu nag kon ku ci suñ tubaab boole rek war ngaa sant yàlla bu baax am tawfeex kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant it suñu asan ci kàddu yi lii e, lépp it su amee yaakaar naa ni relation bi mu ngi tàmbalee Las Palmas te loolu lépp it maag suñu asan mi liggéeyal sëriñ bi moo ñu fa yóbbu nag ci ndigalul suñu affaire ak daayira bi boobu ba léegi e, koo xam ak loo man ci loo xam ne luy jëmee liggéey bi kanam la yaa ngi ciy jokkoo ak suñu asan ba biñ dajee Espagne ci journée ci la 4 septembre bi ci nga waxtaan ak man ci. ci lii ngir fas yéene eh, ngeen fas ko yéene def loola moom ngeen di jëmmal nii kon yàlla nañ ci àgg jàmm ni ñu ko waxee membre bi fiy ndekkee mu ne su leen a takk wala membre bi nga xam ne dañuy soxla ku leen jox ndekki ci jumaa ji kon def leen lu ngeen man rek yéen daal def leen lu ngeen man yaakaar naa bu soobee yàlla lu ngeen fi indi ci mburu wala gato wala yu demee noonu a ah, am na fi gaa yoo xam ne moom yaakaar naa ne buñ ci jëfandikoo bu jógee force bi ñu am ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa na leen leer ne ñaq woowu woowu wu nekk képp koo xam ne financé nga ca loola ca lañ jëfandikoo sa wàll day ñëw man sànn sunnatan hasanan falahu ajruhu wa ajru man amila bi maanaam ku dimbale kuy liggéeyal yàlla wala nga bernde loola kenn mënut a xam ceeba ji fan la fan la fan la fan la fan la fan la fan la fan la yem su ko xam kon daal ñu ngi tënk kàddu foofu loolu lañ doon yëkkati ci turu Sëriñ Afiya ak turu daayira Muxaddamatul Xidma ngir seere jëf ji te di leen séentu incha allah ci bisu màggal gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu أباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر